Ama Balde doomu Pikine bi maa ngi lay nuyu sëñ bi. waaw maa lay fay soxna si. maa am jàmm bu waaw maa ngi am jàmm di wax bisimilah rahmaani rahiim. auzu billaahi mina seytaani rajiim waaw ñun nag làmb ji nii amuñu dara lu dul ñaan suñu borom pour mu may ñu ndam parce que Modou Lo tey cax cax bi mooy lan Petit Lo dafa daan ne droit bi fi lay des Modou rek sasa si moom ba pare ñun parcelle am nañ lépp. ñoo ak jamaa ñoo ak or ñoo ak pétrole ñoo gaz te ñoon noonu xam nga ñan la talfaa ngi fi faraa ngi fi góor sow ngi fi ñang baalo est-ce que comprendre petit loo ñun lépp ak ñun lépp parcelle dafa am lépp ñun ñoo ak jamaa ñoo ak ñun amul lu ñuy wëri ji génn di wuti ji ndax bu dee ay mbëru mbapat fii la fekk baax bu dee bëre Modou moo ko daax bëre bu dee xeex Modou Lo moo ko daax xeex mais làmb reenu ñaamile kenn xamul fu muy demee mais ñoo ngi ñaan ngir di jaay Seydina Mouhamed Modou Lo yàlla na ko liggéeyu ndeyam mu am ndam bu guy ñu dem bi bismillahi rahmaani rahim ñëw si alhamdulilahi rabbil alamin di wax waa Pikine non violence ñun xeexuñu xuloowuñu suñu def suñu victoire la ñuy jëli ji te dañuy dem jëli suñu victoire si kàttanu yàlla ñëwaat bu soobee yàlla waaw amul jot Modou Sol ba pare Kongo Kongo Kongo Kongo meen bi ama force de da koy jël moo xam ne daanu na hôpital lay yeewoo bilaahi ama balaa na ama seen daa pare fépp su ma mu mel ni ngeen nar a andi xeex kii ko daan jox mu boogoo Sarko na Sëriñ Bamba Mbàkke mais damaa dem Pikine waa Pikine am confiance trop. waaw ñoom ñëpp yore ay couronne. net amul lu ñuy wax ndax couronne bi dafay ñëw. loolu foo couronne la amaa couronne la ko gisu boobee. loolu foo couronne la foo def. Amadou Mbër. foo teg ni Amadou Mbër. bilaa wala Amadou Mbër. daa booy Modou Lo da ngaa daan ñëw daanaan ko. na Modou Lo moo nekk benn nit boo xam ne l'homme fort de tous les temps fépp la mu ne. mais waa Pikine nee nañ kenn du leen daan ñaari yoon. dañ leen di daan ñaari yoon ba ñett su paree boo ñaan na ñëw ñun instant pare nañ Modou Lo leen leen rek lañ ko ñaan nañu daanal combat bi combat bi combat Papa Thiam bi bu mu amoon fii gi bu combat ju mbax bi ama lan dañ doon wax amul ama nee na boobu xale la woon bi la dina neex daan nañ nañ bàyyi Balla Gaye ñu di cëfal ama du neex Balla Gaye nax ama xal du nax ama Balla Gaye moo ëpp ama doole moo dàq bëre moo ko dina ëpp xanaa ama doole bi ba ata mbëf la ñaar loxo da ngay génneel góos kon da ngeen nar a indi xeex génneel ama na yaru rek na yaru rek ñu daan ko nang mais bu yaru Zarko jàmbar Zarko jàmbar Zarko jàmbar barki la ñuy topp di yaram topp ñu benn wala da nga dof kan ah, la moo tax wala engrais jur ingrédients la amul joobu boobu muy tàgg suñu yaram muy tàgg suñu yaram. xool xanaa amul. ngay sombi rek ngay sombi. Amul kenn ku yeewoo parcelle dañ lay góoboo suuf doo ko ñëw fii neex a faral mooy suñu Adji Sarr laa loo Ama dañuy soog i dem barki Ama sa dada yaay Ama xara ñëw lay bañ a dee xara ñëw lañ indi rek waaw door mu ko si bëre su xëyee ñu door ay wax rek lañ fi nekk ay wax wax ji bëri lañ fi nekk mais mbër ko yor bëri ñoo ko dàq bëri ñoo ko dàq xeex lan lay conseillé Ama nee na ko bu fayul ko mu fayul ko bala ngay jaar la la ko mën a fayu xanaa waa ji la koy fayu comme waa ji bëri mbete mbete mais puis nga xam ne waa pare seen morom ndala pour am na bi yëngal ñu def dal boobu dal boo tegee nen muy daw la jontu luñ loole ñun dañ bëri ma ne bi pour couronne bi la. pour ah, couronne da ngay dégg ay lammi ay waaj rek la fi wala ay fookaay yi lay sol ah, mais roi des arènes du ko laal si bopp bi. nga ne. dañ ko duma daan duma daan. man nga teg ni da nga koy duma daan. ñoo ko mën ñoo ko mën ñoo ko mën ñoo ko bu doole. waa Pikine nee na dañuy jël li ñu moom muy couronne bi. couronne bi couronne bi man la moo la day bàyyi la ma tàgg mu yor couronne bi maa la waxaloon mu jox ko waaw mu jox ko booy yëpp ñu teg ko affaire bi jeex na ndeysaan mu mel ni waa parcelle dañu ngeen fas yéenee duggee stade tey yëngal rek ba àgg stade barki Serigne Touba mais waa Pikine nee na bu ngeen yéexee ba feesal ñun ñooy feesal stade bi ñun waa parcelle ñooy feesal stade bi ñoom nee nañ foofu mooy seen toolu ma nee nañ foofu mooy seen tool pare wuñ barki Serigne Bamba nga ne seen maam amul tool ndereng la ndeysaan Pape Sarr mi toogoon naan Modou Lo na ëndaale musóor ngir yàlla moom buy ñëw na abaale maamam robb ko waaw Modou Lo gerte gu tooy kenn du ko bàcc mu ne dama ne ko bàcc loolu daan ko fan nga teg loolu ñoo ëpp doole dàq xeex ëpp fit. mais waa Pikine nee na ñoom ñooy xale ñoo gën a soxla. ñu ngi gis bi hey. Eh. xam nga sëll yi ñu ngi betuwaar. ren di rek a des ren. ren di rek moo des. pare arène nationale. Eh. moom kese. arène nationale. Eh. yéen. ah lu mu dem ah, daanu lii du. tey damaa ñëw seen waa parcelle def zone noire. mu mel ni làmb bi dañ ne làmb drapeau la ndax damaa dem Pikine gis leen ñoom tamit ñu def vert rouge ma ñëw parcelle gis leen ñu def zone noire mbokk internautes yi ñuy suivre ci direct bi ñu leen di kontaanee ndeysaan Dame Suguer laa seen noonu muy ñëw. ndeysaan maa ngi seen leket bu def soow maa ngi seen ndey tamit Mbacke njaay mu ngi yor ay kaas. Mbacke Ndiaye laa seen mu yore ay kaas ñuy joxe ay soow leket ñaari leket bu am soow Mbacke Ndiaye ngeen seen noonu moo yore kaas yi def mbaxane bu rouge bi ndeysaan muy bu soow noonu mais soow dafa weex soow bi lan la cey làmb ñaari leket soow soow bu dang soow bi général bu ci amoon dañuy jël soow bi dang na ta maa ngi ciy seen ay affaire ndeysaan làmb leket bu mag laa seen noonu leket rek cosaan la gis si sow bu weex tàll bu am ay bagage Mbacke Ndiaye ngeen gis noonu mooy seddale sow bi na Mbacke Ndiaye diggantam ak leen fàttali yéen a ngi fi en direct ak Yeumbeul Vision TV en direct chez Modou Xarañ Lo le roi des arènes le roi lañ mën a waxagum fii ak ay heure rek ndax waa Pikine koo si wax mu ne la futur roi ndeysaan Mbacke ngeen seet noonu mu ngi joxe soom ndeysaan lamb gis ngeen ñu ngi joxe noonu soow mi supporters yi ndeysaan waa parcelle nee nañ dañuy làmb waa Pikine tamit nee nañ dañuy làmb kon li ma mën a leer daal mooy tey dinañ gis làmb ndeysaan ndeysaan yéen a ngi gis gars ñu ngi tibb soow mi di joxe yéen a ngi gis noonu Mbàkke ndeysaan mi ngi tibb di joxe rek gars yi di leen fàttali soow bi du soowu kase mais salade de fruits la eh waay soow bi dafa am ay ñam xam naa ñi sant Dieng walla Fall gisuma leen mais ñu ngi tàqamtiku yéen gis noonu gars yi ndeysaan maa ngi seen benn oto buy dugg yéen a ngi seen oto bi noonu ubbil nañ ko mu ngi dugg mais ki ma seen ci biir oto bi dafa mel dafa teg kaala gu weex mënu ñoo gis kanam bi mais maa ngi seen kaala bu weex baadu sëriñu mooloo kan la saa Touba la wala sëñ Cissé ki ma seen daa mel ni sëñ Cissé la sëriñ Cissé mu sëñ Babacar mooy dugg noonu moom ngeen seen si oto bi mu ngi noonu di def direction kër Modou Lo Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy moom ngeen seen noonu moo ngi dugg kër Modou Lo ndeysaan ndeysaan ba tey yéen a ngi gis soow maa ngi noonu soow mi ñaari leket la dafa am ñam Mbacke Ndiaye mooy tibb noonu di jox xale yi cey soow mi su ma si mënoon am ndeysaan mu mel ni làmb ji tey mi moom la xale yi di tàllal noonu yéen a ngi gis mais soow dafa am bayre soow dafa am bayre ndeysaan yéen a gis Serigne Cissé moo wàcc noonu moo def kol bu weex bi sëriñ Cissé mu sëñ Babacar yéen a ngi gis noonu wàcc na ci oto bi ubbi na maalu oto bi te jaat na ko ndeysaan waaye seen naa saa Touba maa ngi gis saa Touba moom tamit dafa wekkoo ñaari col vert ak blanc ubbi na oto bi Serigne Cissé ngeen gis noonu moom ak saa ba ah keesu mandarine laa seen keesu mandarine gis naa beneen kees ndeysaan saa Touba ngeen gis noonu moo ngi noonu di duggaat waaye Serigne Cissé mu sëñ Babacar si moom tamit aussi mu ngi noonu di duggaat ñoom ñaar laa gisandoo woon keroog ci open press ba waaye ñoom ñaar laa gisandoo fii maa ngi seen ñaaxarañ loo ndeysaan cey làmb waaye bu leen fàtte ni parcelle tey soow lañ saraxe ndeysaan mu ngi noonu Serigne Cissé mooy dugg noonu ubbil nañ ko dugg na ndeysaan yéen a ngi gis noonu yéen a ngi gis noonu saak satala mooy génn noonu di ñëw waaye maa ngi seen te ku yor guttu guttu bu ñu lëmas ak mbuus bu vert yéen a ngi gis noonu satala faran laa gis yéen a ngi gis faran ndeysaan ngi noonu waaye satala fan la jëm faran daa ñëw fopp benn xale faran dafa jël ay xale yéen a ngi gis noonu yéen a ngi gis Franc mu ngi tëbal ay xale cëy làmb yéen a ngi gis noonu Franc mu ngi jiital xale yi mel luy dem ci biir ndeysaan yéen a ngi ko gis noonu ak xale yi yéen a ngi gis xale yi noonu ànd nañ ak Franc Franc jiital